xadi kelo lo, gisal yow lu bax li nga def dina la ko waxal muy bëgg jàmm ak bëgg bolo ci daru nag way taacul takandangal tangara gendang ndang gendang randal tandang randang Awai ni duma limu tur duma limu sant man xam nga ñu may wo Cerno ko ànd ak moom ana ñu ko bëgg ana ñu ko bëgg ana ñu ko faral xoolal Macky Sall def la wóolu tànn la ba noppi waxtaan ak njabootam ngay def lu baax ni gisal xam nga lu baax li nga def tey ma wax la ko ñëw ci daaru teral daaru loo am bokku koog daaru yaa bëgg Macky sa digganteeg Macky ku ko nara yàq yàlla na dee di dee di dee ba wow koŋŋu kenn du ko suul nit boo demee ba ni diw laa faral diw moomu waroo toog ko sax xool yow da nga waxoon sa jëmm yow ne man fi ma jàpp foofu warta daanu parce que su daanoo yow dinañ la di nga xeeb sa bopp te da gis ne yow yaay jéem te li nga doon jéem sottiwul kon nag ñun boo bëggee sa bopp foo jàpp da nga cee war a dem ba jeex loolu moo tax non seulement le président Macky Sall bu fekkee dañuy fal nit ci bilan am na bilan bu fekkee dañuy fal nit ci lu mu war a projeté ca kanam xam nañ ne fa mu jëmee réew mi lu fa baax la xam nañ ne aussi moom mooy nekk le seul candidat boo xam bii bu faluwaatee du fi nekk di wax naan waaw li ma fi fekk xaw ma ni nii la demeek damay def état de lieux ak damay def lu neex Cheikh Assou Faye Samb pour faluwaat parce que moom soxlawul beneen mandat bu faloo juróomi at la yoo xam daf ca war a liggéey pour yóbbu Sénégal ca kanam juróomi at la yoo xam dafa war a def réforme yi mu war a def pour que ku ñëw nga mën cee sukkandiku pour que réew mi jëm ci kanam mooy président bi nga xam ne bi aussi bu ñu bëggee jàmm ci réew mi jàmm ci réew mi nañ ko fal bàyyi ko mu continuer li mu tàmbali woon def yeneen projet yi mu am keneen ku ko remplacer mu am foo mën a teg sa tànk pour que réew mi jëm kanam parce que dañu war a bàyyi politique bi ñuy foyee parce que loo xam ni dafa yor nekkinu doomu aadama yor fajtam yor sa doom ju bugg a liggéey yor sa doom ju bugg a tekki nit war a yor li ñëpp bokk nga di ko dénk ku nekk ba mu di ko foyee bu ko defee jeunes yi kon ne di chômer jigéen ñi nga xam ne bile ñoo gën a sonn ci Sénégal parce que foyer yi ñoo ko yor di continuer di jànkonte ak li ñuy jànkonte xale yi duñu liggéey defe naa ne loolu nit ñi war nañ ci am passeef pour jéem ko jàpp te politiciens yi yéen da ngeen leen war a moytu yéen jeunes yi ak yéen jigéen ñi parce que politiciens yi ngeen di gis yëpp ñu nekk ay candidats élection présidentielle di xëccu ñoom ñëpp ku ci nekk yàlla may na la lam lay may ba pare may na la kër jox la ay soxna jox la say doom ñuy jàngi bitim réew nga ñëw bu ñuy def seen xuloo beeg seen affaire yooyu ñuy def bu ñuy juboo du ngeen ko fekke bu ñuy juboo duñ leen laaj seen xalaat kon bu leen kenn dugal ci seen xuloo yi ak seen xaste yi benn droit nag am ngeen ko senegal yi taxaw yëpp di laaj réew mi am nañ ci droit

ñii fi taxaw di laaj yëpp président Macky Sall moo ci gën moom moo ci mën a toog tey bu dikkee du wax naan dama fee fekkoon li xaw ma ko woon day continuer lim tàmbali woon indi li fi leneen def réforme yëpp réew mi jëm sa kanam mais ñii di wax kenn koo ci jël la muy wax gëmu ko nga fekk koo xam ne kii il a été président de l'Assemblée nationale premier ministre nekk un fonctionnaire ministre de l'intérieur diriger campagne un homme comme Abdoulaye Wade def Senegal, maintes fois Macky Sall lima neex ci mom moy c'est que Macky Sall limu mu senegal amul benn doomu aadama bu def politique bu ko xamé non man xam man duma ma duma jay kenn parce que Macky Sall nak mom depuis 2014 musuma lek jëluma postam sama alal la jël diko def ci samay nit di len té pour que ñu and pour wotel ko kon luma wax ci mom rek luma ci gis la lima gis ci mom di ak mom wërna ci bi ablay di di def nan day monté wat PDS muy wër fu ablay Wade nek ci Sénégal gi Macky tek na fa tangam mu paré nek directeur de campagne ablay Wade wër Sénégal bu mu mat seuk ñu dakk ko assemblée nationale mu taxawal parti mu wër Sénégal ay 3 fois ay 2 fois motax tax dëkk boo ko mu ne la benen dëkk bi di bi mi ngi ni kon koku xamna Sénégal ci xam Sénégal gogu motax muy def yi ay bourse familiale

yàgg fa mais xàll rek laa ko doon def dama ko daan xàll di ko yóbbu mais ñu ko soxla woon soxla ndox soxla courant président Macky Sall ñëw léegi ba fexe ba PUDC di leen jox ndox di leen jox courant di leen defal teen mais loolu nit ku toog nga ni teguma si sama bët ou bëgguma ko ci biir Sénégal naa fekk nga tam sa mbiri bopp kese moo la tax di wax. bourse familiale bii gars yi di toog di wax mais nga gis maire boo xam ne bi naroon naa dund ba dee. du dugg ci poste ma mu dugg ci banque laaj xaalis ñu jox ko ko même bu doon 10 000 francs weer jot ñu jox la ko ne la facc sa doom ou bien yokk sa dépense loolu moo moo gën ñàkk la koo jox kon loolu c'est très bien couverture maladie universelle c'est la même chose mën naa toog fii di lim di lim di lim di dem comme nag nit ki li mu def bëri na ca ñeneen ñi proposé wuñu dara bu ngeen jógee fii bu leen yam di def seen réunion yi ngeen di def da ngeen di wax ne man Khady su ma jógee ci réunion bi war na ma mën a dem ba convaincre juróomi nit mba juróom-benni nit yu àndutoon ak Macky Sall ñu ñëw ànd ak moom